Mamadou Lamine Diallo ginnaaw bi ñu la nuyoo yow njiital mouvement tekki bokk itam ci euh, congrès de la renaissance démocratique am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey dalal ak jàmm. waaw maa ngi lay nuyu euh, ak seen yëpp ak seen auditeurs di la ñaanal ak ak ak tawféex. amiin itam ñu la koy ñaanal alors congrès de la renaissance démocratique euh, da ngeen daal di euh, yóbbu ay recours ci cour suprême bëgg ñu daal di niinal li di décret bi indi honoraria ci conseil économique social et environnemental alors ndax mun nga ñu ñëwal ci li sabab réaction bu ni mel ci seen wàll. waaw xam nga mbir bi moom bu mu moom dëgg-dëgg euh, sénégalais yu bare kontaan nee nañu lii moom xamuñ lu muy niru euh, euh, parce que nag ñu ngi ci biir mas mas bu metti ñëpp xam nañ ko moo xam ne dafa ànd ak nu mu ay crise économique ah maanaam koom-koom beeg am am yëpp dañuy wàññeeku complètement loolu mooy tax mas mi nekk lu doy waar ñaar yooyu la boole dinaay dégg sax ñuy wax ne waaw euh, ñeneen ñi wax ne mas mi moom moom moom gënu la metti si yu mel noonu mais du benn euh, parce que euh, mas mi dafa ànd ak pour mën ko xeex foog nga rey ko koom bi wala nga nga wàññi bu baax a baax a baax loolu moom moo moo tax mas mi mu compliqué léegi nag ci biir loolu gis ngeen ne ñëpp sonn nañu muñ nañu ñu ngi góorgóorlu ah Euh, président Macky Sall ak régime bi yeewu suba ni ñoom léegi dañuy jël suñu xaalis di ko jox ku leen neex loolu noonu la niroo ay honoraria yu kenn xamul ak yu mel noonu alors euh, bu mu amee nag ñu bare kontaan ñu ci ci waa CRD jàpp nañ ni loolu warul am ñaareel bi tamit yëf yi mu demee dañuy yeewu suba jis ñaari décret de mille vingt neuf cent soixante quatre benn bi circulé euh, gouvernement bi wala président de la république génne benn communiqué la boo xam ne xamuñu sax ndax communiqué ndax nuñ ko signé sax waar. mais bon ñoom comme mënuñoo liggéey c'est pas grave ñu ne loolu du dëkk ñu teg ci yenn fan mu amaat beneen beneen beneen 964 bu bu benn benn benn kàngamu APR génn bii moo amee bu baax comme su nekkee moom mën na mën nañu wax bu baax ak ak bu kon bu ñu gisee loolu ñu xam ne suñu république bii fu mu jëm baaxul parce que nag base république bi euh, muy muy muy loi muy constitution muy état de droit loolu dañ ci war a liggéey dañ ko war a taxawal dafa war a dëgër. moo waral ni lii foog ñu dem cour suprême nee cour suprême laaj juge bi ne ko nañu benn référé président Macky Sall nañu wax 964 yi bu ci dëkk nañu publier bu dëkk bi journal officiel ñaareel bi su ko publier ñun tamit nee nañ dañ ko war a annuler parce que boobu mënula am fii ci Sénégal ñu ciy wax affaire honorariat te amoon na ay loi yoo xam ne ak ay ay décret yu tëral honoraria parce que honoraria euh, conseil économique et social su waree am bureau bi moom moo ko war a décider jaarale ko assemblée plénière te nag loolu àndul ak ay ay ak ay avantages yu kenn xamul dan lay sargal rek ñu jàpp ne yow liggéey nga liggéey boo xam ne ne say ñu waa conseil économique yeeg yooyu mën nañ ni kii def na fi loo xam ne war nañ ko mën a sargal loolu la mais néew ñu fi ne dañ lay jox ay ndàmpaay dul jeex Euh, militaires yeeg gendarme yeeg policiers yi dañ leen di sargal tous les ans ñu am seen i médaille ak seen i décoration loolu la alors loolu moo tax 976 bi tamit attaqué ko parce que boobu moom mooy jox honorariat à la à la à l'ex présidente euh, loolu moo waral ñu dem foofu cour suprême yóbbu fa nag euh, ñaari recours yu may wax ni 64 900 contre 964 ak 976 ak yeneen yoo xam ne ay référé la comme ni ma la ko waxee président bi mën a publier. le le le vrai décret 964 beneen bi tamit yi effet yoo xam ne 976 war na ko am yooyu yëpp ñu annulé leen loolu moo waral ñu dem cour jàpp nag ne démocratie euh, gouvernance démocratique bu ñuy xeex boo xam ne àla kulli al def fi war am Sénégal parce que loolu moo waral moo mën a jëmloo Sénégal kam lu ko yore pilier bi mooy justice fu ma xam na benn gis ngeen France Angleterre États-Unis su ñu demee ba taxaw ba taxaw. Hmm. justice bi moom moo tax. parce que comportement yi doomu aadama yi mën a am te loolu moo mën a nekk parce que doomu aadama yi fu nekk dañuy jógee si gox-goxaan ak i lakk yi wuute nag yu mel noonu foog seen i comportement yi mën a normaliser wu ba tax soo mënee def ay politique publique mën a am ay réponse yoo xam ne ne mën na ko anticiper te loolu justice moo ñu ko mën a may justice bu taxaw donc ñun. dañu dem justice saa yu ñu fa waree dem dañu fa dem suñuy perte tamit mën nañu perte soixante cinq fois mais jàpp naa ne soixante sixième fois bi nañ jàll. Mhm. justement euh, tontu nga ma daanaka waaye ndax dëgg-dëgg yéen am ngeen yaakaar si li ngeen yóbbu tey ca cour suprême. ah oui ñun ay taalibe lañu yaakaar àla kulli haal foog mu am. yaakaar moom moom moom moom moom moom moom moom la ñuy dund moom moom moom la ñuy gëm moom moom la ñuy dund. foog ñu yaakaar dañuy yaakaar kenn sinon duñu yaakaar suñu sëriñ si. yaakaar la donc dañuy yaakaar ne dañ fay dem def nu mu ko waree préparer document yi ni mu waree lépp lu loi bi laaj ak règlement yeeg yooyu ak pratique yu ñu defee ko nu mu ko waree jéppal ko fu ma xam ne nekkee benn ah léegi nag di di leen déglu di leen déglu. d'accord sànq yaa ngi wax ne lii leen choqué ci mbir mi honorariat bi mooy fi ñu ko defee euh, ci conseil des ministres bi weesu itam ñu bari gis nañu ne euh, nomination yi président def euh, noonee la ñu ko mën a jàppee ndax yow gis-gis boobu nga ci am. waaw man jàpp naa ne mënoo ne Sénégal yi toog leen seen kër muñ leen defi leen seen i sacrifice parce que dañu war a xeex Covid 19 bi coronavirus ñu ànd ci ne ah waaw effectivement lii moom ñëpp ànd ci. léegi ci biir loolu yow ngay jël suñu koppar parce que moom lañ ko dénk mooy budget bi ak finance publique def lu la neex dina ay Samba Boy yoo xam ay conseil d' administration ñu ci bare mënuñoo lire sax ay bilan de société loolu moom moo tax société yu bëri fii en CNDG yi lu neex nañuy def parce que président conseil d' administration yi xamuñ ci dara xamuñu dara luy bilan xamuñu compte d' exploitation dañ leen fay teg noonu rek ñu jël seen un million xaw ma deux millions ou trois millions ak oto ak mille d' essence yooyu yëpp Sénégal yooyu dafa war a dakk dafa war a dakk yooyu yëfu caaxaan la yooyu yóbbul euh, fenn Sénégal ci kanam surtout dans les sociétés yoo xam ne son sont stratégiques comme ay Sénélec ay yu mel noonu alors donc vraiment man jàpp naa ne loolu euh, euh, dañ ci war a génn te ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. Mm-hmm. léegi nag effectivement fu ñu toll nii mënuñoo wax sénégalais yi muñ leen toog leen seen kër wàññi leen kii bi seen réunion yi dem nañ sax ba julee suñu juma ak ak jàkk yeeg yooyu yëpp. restriction yóbbu ñu def ko un ñu gis ne feebar mi ngi yokku ñaareel bi ñu ngi def lu leen neex ñu ngi def lu leen neex gis nga affaire u ceeb bi ni mu demee pendant deux mois mënuñoo distribuer ceeb fii ci réew mi te waxoon nañ Macky Sall ne ko distribution ceeb xanaa muy sarax man xaw ma lan la amul benn sens amul benn sens ñu ñu war a jox xam nañ leen normalement su boobaa nañ leen yónnee seen i xaalis la poste mi ngi fii poste mën na def liggéey boobu suñu su ko poste mënulee def tamit a ah, ñeneen ñi ñu ngi fi ay ah, euh, bëgguma leen tudd sax mais xam ngeen leen donc mm-hmm. vraiment effectivement la possibilité fii amoon na ñoom defuñu lool ñuy def lu leen neex nekk seen la olala ah, donc léegi population bi dem na ba léegi nee na ñii ñu ngi leen ñii duñu dee xiif nag toog fii di xiif ñu génn daje coronavirus bi ñu xool léegi lu yàlla ci def. Mm. fanaan ñu toll tey Sénégal sës nañu mënatuñoo continuer ci confinement euh, bi Euh, bu leen restriction de liberté bu leen Macky Sall imposé te ak jurul benn résultat. Hmm. loolu yàqu xaalis ak koppar. Hmm. nga jàpp ne kon loolu moo waral manifestation yi am barki démb ak démb ci euh, Ndakaaru ak yeneen gox yi ci biir réew mi. ah oui oui loolu lool loolu loolu loolu xam na ne fan la ñu ñoom parce que Sénégal man ma lay Macky Sall wax naa ko ko leen Sénégal secteur informel man maa a xam nag neex leen naxari leen lool la yàlla parce que man bu mu ciy bind 2004. après dix ans quinze ans maa ngi gëstu di liggéey di wër àddina bi ñoom defuñu ko ma ne leen suñu koom-koom fii dafa am particularité du Sénégal kese mooy secteur informel donc foog ñu jublu ci faalewuñu moom ba léegi maa ngi continuer bu ma doon wax ak Macky Sall sax tout secteur informel sax dafa tourner bopp bi donc secteur informel fii mi ngi fi ñooñu ci suñu gis-gis ñun en tout cas jàpp nañ ne vingt jours quinze à vingt jours mën nañ koo muñ bañ a liggéey toog seen kër alors loolu suñ ko defoon te looloo doon suñu recommandation man bind naa ko wax naa ko bu ma génnee foofu ci palais bi tamit wax naa leen ko ñu ngi woon foofu Sédhiou Gueye mi ngi woon foofu Timba donc du ko wetti ak Racine Talla wax naa leen man lu ma gëm ne leen lii la ñu mën a def suñ ko defee courbe bi dañ koy bloqué waxuma ne kenn du feebar ma dañ ko bloqué la mu jël nii. Hmm. tangente boobu du ko jël. su boobaa ñu mën a xool naka nañuy déconfiné. nee naa sax Macky Sall yenn régions yi ñooñu dañ leen di préserver ñooñu mën nañu reprendre seen activité économique à ce moment-là. Mm. à cent pour cent en tout cas pour ce qui est de la région. ay Matam wax na ak moom Matam à l'époque à l'époque Sédhiou sax du ko fa woon yooyu lañ jëloon comme exemple alors defu ko nekk fi di taaba taaba dans l'incohérence ah takkuwul ñoom seen décision seen i liggéey seen doxalin takkuwul te xam ngeen lu takkuwul du dëgg dëgg day takku loolu la ñu xam loolu la ñu jàngal. Mhm. dafa mel ni nag manifestation yooyu lu ñu bëggoon am nañ ko ndax nguur gi euh, dellu na ginnaaw ci lu mel ni transport interurbain bi nga xam dañ ko tëjoon ubbi nañu ko restaurant yi ak euh, yeneen ak yeneen mun na ubbi euh, salle de yi également ndax yow xaaroo xëy na ñu jëm ci jamono bu gën a metti par rapport ak feebar bi maanaam wàllante bi gën a yokku ak yooyu. xam nga loolu kenn mënu koo ñaan au contraire chaque jour suñu dajee nañu ñaan yàlla ne ko na fi yàlla jëlee machine. Hmm. waaw loolu mooy suñu wareef ay jullit nañu dañoo gëm yàlla suñu jullit tamit ay catholique nañu gëm nañu yàlla kon nag ci loolu la ñu nekk fii ci Sénégal kon kenn mënul toog fii di wax ne ah mais quand même suñu xoolee lu ñu xam ki lu ñu yàlla jàngal parce que lool laa mën a parce que xam-xam bi moom ci yàlla la jóge même suñu nekkee di ay scientifique ak yooyu yëpp ci ci yàlla la jóge mu xamal ñu ko suñu gisee këbu bu mel nii évidemment danañu tiit parce que activités yi suñu reprendre ah forcément euh, contact yi dina reprendre ak yu mel noonu dinañ ci góorgóorlu nag parce que nag il faut que ñu sol ay masques dinañu dinañu raxasu dinañu. Euh, respecter distanciation bi respecter distanciation yooyu yëpp foog ñu def ko changer suñuy comportement yi di jàpp ci salaamaaleykum ak yu mel noonu dinañ góorgóorlu ñaan yàlla tamit mën na am effectivement euh, peut-être courbe bi du yéeg noonu comme ni mu war a mais quand selon toute probabilité. affaire bi moom dana dana dana dana continuer ñii lu ma gis nii ay quatre vingt quatre vingt dix. Mm. Euh, maanaam moom moom par jour bon dana compter ci lu ñuy tester xam na ne ëpp na loolu. Mm. léegi nag euh, comme heureusement on a suñu population bi magul noonu ay jeunes nañu te dëgër nañu parce que xam nga fii ku Sénégal danga koy faral a wax ku juddu ba am cinq ans rëcc nga. Mm. kon yow dëgër nga déjà xam naa ne yow organisme am na système immunitaire boo xam ne xaw na dëgër donc ñooñu. maanaam jàpp na ne ñu jaar ñu bare jàpp na ne ñu mën nañu rëcc. Hmm. léegi nag ñu ci des mooy suñu compagnie yi ñu ëpp cinquante ans ak yooyu bon ñu jàpp ci yàlla rek mais xam naa ne forcément fa lañ jëm fa lañ te loolu day wane ne Macky Sall échoué na général la nee na ñu jox ko tous les pouvoirs ñu jox ko di ko déglu di ko topp lam ñu wax ñu def ko di ci di ko ci jàppale nag parce que ñun mais on passait notre temps expliquer Sénégalais yi effectivement mas mi lu tëkk la euh, lu am la. Euh, bu leen bu leen bu leen ko bu leen ko euh, euh, suufeel bu leen ko woyfal da ngeen di jàpp ci mesure mesure ñu koy wax ci encore la les mesures barrières yooyu hmm. di ko expliquer population yi parce que y une campagne aussi xam ngeen ne ñu bari ko wax nañ ne loolu dëgg y a des enfin y pas mal de ak les théoriciens du complot là yooyu yëpp ñu ngi fi nekk ci réseau sociaux yi di wax lu leen neex yooyu yëpp ñun bokk nañ donc ci xeer ànd ak population Sénégal lu ñu mën ñu ngi koy def suñu amee mënee joxe masque ñu joxe masque ñu mënee joxe suñu loolu jàppale ne général il a échoué nee na il faut vivre avec le virus ah, euh, bu la bëgg a rey day hmm. la santé est ce que xel yi mënul dal puisque affirmé na ne. pic bi euh, man man mënuma su amoon tuuti tuuti tuuti tuuti dignité dafa war a démission. man man du ma ko déglu. loolu tamit nga xalaat si ki yore wàllu njàng mi Mamadou Talla. moom tamit dafa laaj. ba ci démb Ndiaye la seen benn waaye ne gouvernement ennemi. loolu maa ko wax kenn ku leen di jàppale seen benn idéologue ñoom ñoo ko wax. Hmm. ñii dañoo laaj mënu ñoo dara. seen kilifteef matul. wane nañ ko xam nga tànk yëf yaa ngi neex ngay dugg sa kat kat di di di di oh mais chef buñ koy xaar mosu amee crise fa ngay wane sa kilifteef. Mhm. ñii matuñu kilifa loolu mooy dëgg gi. waaw léegi bi bi crise bi dooree Mamadou Lamine Diallo gis nañu yow ax yeneen ni euh, homme politique bokk ci opposition bi demoon ngeen wuy ji président bi mu leen woowee ci waxtaan ndax euh, du da ngeen a gis ne dégluwu leen parce que nee nga li ngeen fi wax yëpp defu ci dara loolaa waral xëy na déggoo bi ñu njortoon yaakaar ko ginnaaw daje bi mu daal di dakk fi saa si. bon man xaw ma ñooy wax ñooy ñooy ñenn man sama mën a waxal ak waa CRD. Mm. Euh, ñu ci dem ci CRD foofu. Euh, euh, euh, li ñu dem li ñu waroon wax wax nañ ko Macky Sall wax nañ ko président Macky Sall wax nañ tamit ne ñun la muy def noonu duñ ko xeex nañ ci ànd danañ nañ ko appliquer dañ ci góorgóorlu tamit ne Sénégalais ñu appliquer ko bien que ñun suñu solution bii nañ ko préconiser bu mu ne dafa bëgg a plein pouvoir assemblée nationale nee naa ko soxlawuloo waaw soxlawuloo ñaareel bi. assemblée nationale seen façon ndaje yooyu ne xaw ma conférence des présidents nee naa ne loolu c'est pas démocratique visioconférence mi ngi fii an ah, man jàpp naa ne yooyu yëpp war nañu ko mën a essayer pour pour député yi mën a toog mën a ko def seen liggéey dégluñu moo tax man wootewuma ko c'est plein pouvoir loolu la woon xaw ma nu tax ngeen koy tuddee déggoo ay consensus ak yu kenn xamul man new ma ci yooyu dañu am suñuy suñu suñu cëslaay dañu am suñu programme ci yooyu la ñu nekk di wax ak peuple sénégalais loolu mooy suñu liggéey léegi nag su defee leen loo xam ne ne euh, euh, euh, war na ko def par exemple ci affaire suñu mbokk diaspora yoo xam ne nee nañu néew yi bëggoon ñu dellu si fii ci Sénégal nanguwuñu woon jàpp nañ ci finalement nee na loolu mën na nekk alhamdulilah wala xam nga nag loolu lañ di woowee consensus mais ñu newuñu ci ginnaaw Macky Sall di di di di ko xalamal loolu mën na nekk waxtu bi moo ñu dab mënuñoo dugg ci wàllu koom waaye bëggoon nañu ko junju ñu ngi lay gërëm Mamadou Lamine Diallo. Euh, yow yaay njiital mouvement tekki bokk itam ci congrès de la renaissance euh, démocratique amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu réew mi. jërëjëf Fatiam yaa ñu yàlla jàppale. amiin amiin merci Diallo musal musal la ci virus musal ñu ci ñun ñëpp jërëjëf ñu <laughs> yendoo jàmm. jàmm.